c'est une première ci ñun hôpital régional Diourbel ay mbàkke-mbàkke jël initiative yi don de sang. boo seetloo màggal dafa am ñi nga xam ne dañu nekk ci hôpital bi di manque de deret maanaam ñii dañ leen opéré ñii manque de deret ñii dañuy wasin encore di xëpp deret ñii dañu nekk dañuy accidenté ñii manque de deret te buñ seetloo ne ci jamono màggal gi accident yi ak ñii xëpp deret ak ñii opéré dafay bari lool. daayira bi bi nga xamee ne fondé nañ ko dafa am yoo xam ne mooy moo ko tënk ñu wax yoo xam ne mooy ay objectif Euh, bi ci gën a am importance nag mooy joxe ay ay ndimbal léegi nag te ñu gis ne nit ñi ñu ngi koy gën a soxla bu màggal gi jubsee ndax ñi nga xam ne dañuy dañuy teeru seen i gan am na ci ñoo xam ne seen loxo seen loxo jot na seen dëgg gannaaw waaye nag am na ci ñoo xam ne seen loxo jotul seen dëgg gannaaw. ndimbal yi mën nañ ci tudd lu mel ni ceeb suukar dëwlin bari na bari na daal. waaw maye deret bi euh, jëf joo xam ne jëf ju rafet la muy loo xam ne euh, dafa baax ci wér-gu-yaram moom nit ki koy def. ñaareel ba it muy loo xam ne jamono ji ku ne xam na ne hôpitaux yi soxla soxla nañ ko rawatina période bi ñu koy defee muy màggal gi ñaanuñ ko yàlla waaye nag yàlla mën naa dogal euh, ñu soxla ko kon nag ñu teel koo ñu teel koo waajal ba beggandeel ko ba nga xam ne suñu borom dogalee am ñu ko soxlee du am benn benn benn jafe-jafe waaye yi nga xam ne euh, def nañ ko fi bari na ci suba ba léegi ñu ngi wàcce ay kaamel di ko jàng di jàng di jàng di jàng xasida lépp ñu koy ñu koy gàttandoo màggal bi li ñu fi def daal bari na. yeneen activités yi bokk na ci am na waxtaan boo xam ne dinañ ko fi amal incha allah euh, thème bi nga xam ne moom lañ fi war a traité di politique ak Touba. thème boobu la ñuy traité incha allah ku ko ku ko teewlu euh, danañ ko faram-fàcce incha allah ay borom xam-xam lañ ko jox sëñ Fallou Mbacke Kunta danañ ko traité incha allah wax ci euh, loo xam ne daal ku ko dégg dina la amal njëriñ bu baax.